naa ñëpp fii laay tàmbale ngeen ci seen revue de presse sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan wax la ci réew mi askanu sunu gaal cousine bu nuy mel musuma koo gis cousine bu nuy bone amul ci réew mi l'observateur yëgle kaay ni ma am na ci cousine yi léegi kay ku ci mel ni cousine bi dem moom du cousine ubbir yéen a kaay femme bi de li tax ñu yóbbu ko ca fa nga xamante moo di sa chambre criminelle bu Saint-Louis yëgle kaay gi ne daal livré ab cousine mineur gi la ba mu jël ko daal di koo tay la du dara lu dul téeméeri dërëm ëpplo parcours réewum Sénégal kay fi nii tembe jigéen ñi lu leen neex def yëgle kaay gi ne maag demal ca kaso ba nga xool 59 détenus yoo xamante ñoo nga fa yooyu jigéen 54 yëpp lañ leen di toppe du leen lu dul wàllum infanticide ak wàllum avortement clandestin ka am na ci jigéen yu ne ci réew mi ah baax na ñàkk na doon jigéen sax da ko doon gën ndax di jur di sànni di ëmb di yàq rek moo mag wala ndaw ya nga xamante ni ñoo bawoo fii ci askanu sunu gaal ni sa mbax rabax dem gi ne fi mu toll nii tembe day l'enfer waaw safara su mat sëkk la ñuy dund tiit ak jaaxle lan fa nekk yëglekaay gi ne nit yi ñuul ña fa ne te bawoo ci askanu sunu gaal yëglekaay gi ne mayunu leen dara dara dara dara furaas daali xëddeen am na ci ay woyu yoo xamante ni fi toll nii tembe dañuy profité ci mbir mi de di def lu leen neex jàpp yi agressé massacré di leen bundu xataal wuyay di leen torturé laa la wax fi toll nii tembe kay ña nga xamante ni sax ñoo di étudiants yi bawoo fii ci askanu sunu gaal dafa tinisi di cours en ligne képp la ñu amal moom kay ca Tunisie nekk fa xonq nopp daa gën loo seen waaye boo ñuulee nopp day am nga problème problème yaa ngay démarré nag jëm ci wàllum élection kaay gi ne ku tëb ni mana <laughs> candidat yaa ngay feeñ par benn benn yëgle kaay gi ne ña ngay wax de ku ci nekk nag stratégie ba nga xamante ni jàpp nga ni boo ko tegee askan sunu gaal daal laa bàyyi xel yaa nga cax ma ne ki nga xamante ni moo di Idrissa moom Thiès kaay encore que la station présidentielle mu ngi may xaar de <laughs> les échos yëgle kaay ne Idrissa Seck de moo wax ci làmmeñu boppam ni fi toll nii tembe de gisul kenn ku ko ëpp expérience su li nga xamante ni moo di réew mi moom Idrissa Seck fàttali na leen de ni daa def choix nag laa la wax sacrifier boppam ngir ay propre intérêt dëkk bi réew mi ngir mu am jàmm ak tranquillité bu ko fàtte de wal fajri quotidien yëgle kaay ne ma Idrissa Seck mii de xam nga kay saful yàpp saful gejj ci guddi gu bët setegul la ne clair obscur wippi lew mburoog soow mi may gis te bu nu wàttuwul day ah mbaa tuur lu ci am lu ci am ba des daal moom Idrissa Seck day waxagu ci lu leer ndax day demal boppam ànd ak réew mi dem ndax day toog ci jiitum réew mi ànd ak moom yëgle gi ne lu ci am ba des daal ay vision ak mëbëtam da koy wéyal de ba 2024 yor yor quotidien yëgle kaay ne ma waay waay Idrissa Seck mi ba nëgëni nag kenn a Amadou Ibra Kane yëglekaay gi ne yëkkati na ay kàddoom naan demee c'est maintenant laa la wax moom day pare na yëglekaay gi ne ma keneen ka pare kooku Déthié Fall lay wuyoo Déthié Fall nga naan je suis prêt pare na bu yàgg laa la wax ubbil yëglekaay gi maam Moussa Diop pare itam naan du dellu ginnaaw mukk ci mbir mi la bi yoon moom taxaw rek laay def dëggal sama bopp si du ko dijee yëglekaay nga naan moom candidat yu bari yi nga xamante jour ko xamle café balaa neex saf jar tribune yëgle kaay njiitum réew président di 2024 la yem ci ci boppam su ma waxee réew mi parti bee tax may wax de yi leer résultat yi nga xamante ni ñoo am ca Thiès benn dëkk ñaari gaar ci élection yi ñu génn moo ko trahir ci joojale jamono tribune yëgle kaay ni ma am nañu takk taxawal nag takku ba dëgër Bougane Gueye Dany Mimi Touré ak waa yeewee askan wi ñoom day ñoo ànd maase booloo contre troisième mandat enquête yëgle kaay ni ma couteau double tranchant dëgg lees nemmeeku paaka ñaari ñaw ka ci candidature yu yeewee askan wi bari gi nga xamante moom la bari a opposition bi laa la wax am candidat yu bëri mooy ndamam ci jooju la jamono yëglekaay gi ne ma Idrissa Seck tontu ñi nga xamante ñoom ñoo di ña koy namañ naan leen kaay ma wax leen réew mi du appareil électoral boo xamante bu paan la Sadio Mané ñaan coow ma nga xamante ne yëglekaay gi ne daa paanoon yëglekaay gi ne ndax blessure bu metti ba nga xamante moom la amoon ba toog daanaka ñetti weer footballu laalul bal record yëglekaay ni ni ma nga ca stade yëgle ni ma askanu sunu gaal kontaan leen seen jàmbaar ja ba footballati na ubbil yéene kaay bi dellu na ci li nga xamante ni moom la Égypte yoroon doon ci gagné askanu sunu gaal gaynde yi toj tol nañ ko ci Coupe d'Afrique ba ci da ko ga waaw sa lamb ja sunu lamb yëgle kaay ni ma Reug Reug ak bu mujj amal nanu jama laa la ni dafa am lu koy yàq bokk na ca li nga xamante moo di mystique bu ëpp bu rëy bu mett ba nga xamante moo ca am tribune sport yëgle ni ma moom kay coow lu mettee mettee am laata ñoom ñaari mbër yi di daje yëglekaay gi ne ma seen accompagnateur ya maanaam ñi leen di am na ci ñoo xamante ni ña nga ca yoon yoon fa séenee def liggéeyam ndax ñaari kaa yëpp déconné jarul déconné de jarul réeroo café balaa neex saf jaar say laate bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba subaak jàmm ak salaam combat bu mag la <laughs> yéen ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàngeen jëf jërë ngeen jëf jàngeen jëf mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi ma nuyu nag laa Lion sama xarit sama yaay booy ki ne sëy madame Camara kenn la ci man maa ngi koy jaajëfal ah waaw keroog moom teewal na Ablaye Dieye ca Grand Théâtre mhm. waaw ca ca ca ca ngéntal Ndeye Ndiaye la waa polygam ñoo ko doon def di <laughs> kii lii waaw ñu bëggee nag nuy képp koo xamante ne yaa ngi nuy teewlu bàyyiwunu kenn kafe gi nan ko mën nañ koo naan de mais nanu wax ci kawteef bi gaañi waaye yéen gis ngeen nag cousine bi li mu def moroomu cousine am bii am mineur nga jël ko livre ko ah ci ci 500 francs par coup par coup de. xam ngeen luy coup nag jërut nag may yegg ci wax ji 500 francs par coup jox ko ab bande ay gaay ay gaay ay mbooloo ñu ne ca téeméeri dërëm par coup waaye lii lii fii réew mi toll nii moom amul kenn ku ci mën a wax rek ni réew mi nàngam ah xaadim borom italien borom États-Unis d'Amérique xaadim Cheikh ah Moustapha lii kat war nañ cee wax nag nag nag nag tet tet tet tet doy na waar de waaye ëpp tool la def kay magum doy waar waaw nan dem rek ñu nuyu bu baax a baax nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo jot a teewlu revue de presse bi waaw ñu commentaire ñëpp ñëpp rek mënul ñàkk ñu leen di béggee doole ndox la waaye ñun suñu doole yéen ñu ñuy teewlu la ma koy béggee bu baax a baax nga xamante ñoom ñoo ñuy teewlu ci whatsapp bi café gi ak Fall Damel 78 296 29 67 di nuyu waa café gi yëpp ku ma fay teewlu rek maa ngi lay di béggee bu baax a baax a a baax mboole seen ñi nga xamante ni itam ñu may teewlu ci yeneen groupe whatsapp yi Euh, maa ngi leen di bu baax a baax ay tin info yu ni mel cene ba ah jeunesse bi ah, ak euh, groupe yu bëree bëri groupe bu APR yi groupe bu euh, wàllu askanu sunu gaal yi ah yeewi askan wi ah, gars yi ñu ngi may teewlu waa Pastef fii group yëpp ah maa ngi bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn lu ci am ba des moo di candidat yi de moom bareeti na candidat yi bareeti na candidat na waaye nag ah, bari bari bari bari bari kii rek de moom kii rek de lu mu bari bari day leer rek de moom waaw parrainage ya ah man yegg ca parrainage yaa ngi ñëw lu mu bari bari bari parrainage yaa ngi ñëw wax ko wax de waaw waaw ah, man di réew mi ne maa jaaxal man ma ko man réew mi jaaxal man lu ne nga fay gis nag lu ne ah gone ci dëkk bii ah. xoolal jur gi di sànni gi jur di sànni gi ah jur doom faat kenn xamul mu toll na baax na léegi bu nu waxee rek nu nu nu waxati rëy na baax na kafe gi moom des koy xelli rek saa su nu ko xellee nag lu nu gis muy kawteef des koy wax nañ nuyu gaa ñi commenté Ousmane Dramé laa fekk ci kaw maa ngi koy nuyu euh, Sine Saalum Saalum maa ngi koy biggee bu baax a baax a baax Baye Fall Saalum Saalum bi kooku nag ah sama xarit la boroom boroom si kàttanu yàlla waaw moom moom sama xarit la sëriñ Abdoulaye Touré waaw kooku nag euh, jàmbaar la de bu am xam-xam maa ngi lay bëgg bu baax a baax a baax baax di kontaan ci yow waaw bigg naa ci yow bu baax a baax baax baax baax Baye Fallou Saloum Saloum bi borom si kàttanu yàlla ak baaxam Pape Diop maa ngi lay nuyu de ah man nuyu nag bu baax a baax Cheikh Omar Diop. ah yow sama nit nga sama nit nga yàllaa nu boole bëgg naa la Aboubacar Dabo kenn nga ci man de nuyu naa la de Cheikh El Hadji baax ah maa ngi lay bëggee sama waayi bopp ji jëwrin mbaa lépp baax na fasaale naa la ka njool gi anamu ah Jibril Sène jibi maa ngi lay bëggee sama waayi bopp ji kontaan naa ci yow de Dame Kounta nuyu naa la jibi baax moom it nuyu naa la maa ngi bëgg bëri ay jibi nag laat Jóob ak laat Guèye borom njaareem ñaari laat yi sama lañ bëggee naa leen ab sa Guèye moo Seck kenn nga yow ah Ndumbe Tine maa ngi koy biggee ah di biggee bu baax a baax ma biggee ma biggee maa ngi koy biggee di biggee képp ku ñuy teew la ay sa ndoom ñoom ak ñoom Amina Ndiaye borom italiano ñoom ah ñëpp bàyyiwuma kenn sama mbokk yi sama xarit yi sama sama sama am di jàmm yi biggee naa ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay waa kon xam naa dama leen di dox dig daje rek bàjjen xuja nan ko tëj rek ana asuxule nan ko tëj rek ba subaak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf.